alhamdulilahi wa kafa na salaamun ala ibadihi alladina istafa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar eh, ku réewlu liggéeyal ku tedd ki eh, waxtaan yi nga xam ne baaxoo nañ ko amal mu jëm ci eh, gàmmu gi incha allah tey ñu ngi fas yéene Eh, ànd ak mbokk mu ñu xam eh, ci toolub lislaam bi mooy Mouhamed Mourtada Silla eh, di yëngu ci xam-xam jàng ak jàngale ak liggéeyal ku tedd ki tomb biñ tànn tey nag ngir war ko waxtaane layante ci biir mu dib aaya boo xam ni Eh, incha allah eh, mi ngi ci sooratu tawba eh, tolloog aaya téeméer xam naa bala ñoo dugg si waxtaan wi dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee incha allah waxtaan ni muy demee nag day ñëw ci forme incha allah buñ ko laajee mu mën a tontu ci question yi. ndax waxtu yu bariwut kon dañuy bàyyi kàddu gi sëñ Mourtada Sylla mu nuyoo boo defee ñu doog a tàmbali incha allah aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa wa maulana muhammadin al amin wa wa sahbihi wa xayri xadimihi ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy topp ci Euh, jataay bu am solo bii nga xam ne ni nga ko waxee léegi kuréel liggéeyal ko tedd gi ñoom ñoo koy amal di ci dab ak a xemmeem euh, liggéeyub sëriñ bi sëriñ bi ni meloon ci yonent bi sallallahu alayhi ak cofeel gi ak ni meloon ci weeru gàmm tax ba euh, xeeñtu gi ñuy xeeñtu ngërëmal sëriñ bi ak liggéeyal ko ñu di ko xeeñtu ci liggéeyal ko ci weeru gàmm gi donc ci fas yéene ànd ak ñoom di ñaan yàlla mu nangul ñu liggéey bi yëpp ca nangul leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëñ Mouhamed Mourtala Sylla ci nuyu bu am solo boobu euh, sun borom dafay wax ci e, suratu tawba ci aayab téeméer wa saabiquuna alawaluuna min almuhaajirina wal ansaari walladina tabacuuhum bi ixsaanin radiallahu anhum wa radu anhu wa acadda lahum jannatin tajri taxtaha al anhaaru xaalidiina fiha abadan zalika al fawzu al azim kon loolu mooy tomb waxtaan wi kon laaj bu njëkk bi rek sëñ Mourtala Sylla euh, dañuy bëgg a xam aaya bi lu mu wundu dëgg-dëgg am euh, jërëjëf sëñ Cheikh ni nga ko waxee léegi aaya bi mi ngi ci bi boroom xam-xam yi dañ cee wuute waaye ñëpp dëppoo nañ ci ne saxaaba yi lay waxal wa saabiquuna al awaluuna min al muhaajirina wal ansaari suñu borom dafa wax ne day tagg ñi nga xam ne ñoo jiitu ci ansa ci muhaajiruna yi ñoo jiitu ci ngëm ñoo jiitu ci jëf ju baax waaye ak ñi jiitu ci waa ansaar ñoo ñépp ak ñi nga xam ne sax bokkuñu ci muhaajiruna yi bokkuñu ci ansaar yi waaye dañoo ñëw ginnaaw génération boobu wala si na tabax ñetti tabaxaat la tudd ci aaya bi tabaxa bu njëkk bi mooy assaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina mooy ñi nga xam ne ñoo jiitu ci ña gàddaayoon jóge màkk ñëw madinatu munawara bu ñaareel mooy assaabiquuna awwaluuna min al ansaar mooy ñi nga xam ne ñoo jiitu it ci waa ansaar euh, ñoomit ci ngëm bu ñetteel mooy wala sina tabaxahum bi ihsaanin ñi nga xam ne topp nañ ñoo ñu jiiti woon ci rafetal ca ba gën a rafet ñoo ñëpp nag yàlla defal na leen li nga xam ne mooy li gën a rëy wa ridwaanu minallaahi akbar mooy yàlla gërëm na leen euh, kon dafa mel ne ci aaya bi junj na fi ñetti kuréel kuréel bu njëkk bi mooy ñi ñuy wooye almuhaajiruuna du ñëpp nag waaye al awaluuna min almuhaajirina mooy ñi nga xam ne dañoo teel jaayanteeg yonent bi sallallaahu alayhi ca bokkoon ca ña gàddaayoon ña gàddaayoon nga xam ne du gàddaay rek yem ci de gàddaay goo xam ne di mooy sa coobare ci da nga koy bàyyi sa alal bàyyi fi say soxna bàyyi fi say kër bàyyi fi sa dëkkuwaay bàyyi fi say dëkkandoo bàyyi fi la nga amoon lépp ñooñu ñooy almuhaajiruuna ba ñuy demit fañ jëm xamuñu nu mu demee nu mu demee waaye bi ñëwee ñu fekk fa ñoo xam ne yaatal nañ leen lañ amoon moo xam mu néew wala mu bari ñu bokk kook ñoom te it xataluñ leen ci dara ñoo ñooy waa ansaar ñi nga xam ne nag suñu borom moo dogal fekke ñaari kuréel yii nii waaye biñ ñëwee eh, jaar nañ fañ war a jaar fa gën a rafet ñoon ñëpp yàlla gërëm na leen ca mi ngi leen di waajalal pay gu mag a mag a mag ca pay googu bokk na ca mooy àjjana joo xam ne ni day fees dell ak i dex eh, yu naat ci tënk daal ñii ñooy almuhaajiruun ci mufassiruun yi nag ñuy firi alxuraan am nañu ñu ci ne buñ ñee asaabiquuna al awwaluuna min almuhaajiriin am na ñoo xam ne saabi saabixuuna lañ maanaam teel nañoo dugg ci lislaam loolu ci rafetal seenu lislaam waaye kat suñu borom dogal na jotuñoo gàddaay maanaam dañoo faatu lu jiitu gàddaay gi mën nañ cee jël exemple rek soxna xadijatu xadija ku jiitu ci lislaam moo la ca jiitu naa xadija radiallahu taala anha waaye yàlla dogal na bokku ci minal muhajirina am nañu ne déedéet wa na awwaluna minal muhajirina mooy ñi nga xam ne dañoo jiitu ci lislaam dañoo jiitu ci ngëm moo xam ne bokk ci ña gàddaayoon wala sax bokkuñ ci woon maanaam gàddaayuñ ngir nañ dañoo bañ a gàddaay waaye dañoo gàddaayut ngir ne dogalu yàlla dafa ñëw seen kaw mooy dañoo faatu lu jiitu gàddaay gi ñu daal ci joxe exemple ku mel ne sayyidatuna xadijatu radiyallahu taala anha ci tënk rek li mooy maana aaya bi eh, jërëjëf eh, sëñ Mourtada la eh, laaj boobu yàlla leer na lool tënkal nga ñu aaya boobu li mu wundu li seen borom namm ñu xam ne kon su waxee way jiitu ya ci ansaar ak muhaajiruun yi mooy ñi nga xam ni dañoo teel a dugg ci lislaam waaye tamit eh, teel a eh, bokk ci ñi nga xam ni gàddaay nañ wala ñu bokk ci ansaar yi ba nga def ci sax exception boobu ñi nga xam ni même bu fekkee nit ca ñu way jiitu ya nga bokk donte ya dogalub yàlla wàcc na sa kaw ba bokk ci ñu gàddaay sax dañ lay ilxaq maanaam dañ lay bu yéegal ca boole la ca ñu gàddaay wala ñu boole ca ca ansaar te ñooñu wax nga ni yàlla waajal na leen ay ajjana yoo xam ne ay xéewal nga fa tey it la gën a kawe ñëpp di ko sàkku moom la yàlla defal muy ngërëmam mhm. yàlla gërëm leen loolu la ñëpp di sàkku jërëjëf ci aay boobu leer na nañ waaye nag dañuy profitoo rek ci laajub ñaareel bi ngir ne comme ñett ñooñu nga ñu tuddal ne aay bi da leen a tuddal da leen a tudd da cee tudd ñoo xamante ni dañ histoire xam na leen muy ñi ñu tudde muhaajiroon ak ansaar dañuy bëgg nga dikkal ñu ci ñan ñan ñooy muhaajiroon yi dëgg-dëgg. waaw jërëjëf sëñ Cheikh buñ ne as saxaaba lu moo moo war a jiitu sax mu muhaajiroon yi saxaaba euh, baat la boo xam ne borom xam-xam ne buñ ko waxee mooy ku dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko te faatuwaale gëm ko duñ wax sax ku gis yonent bi duñ wax loolu dañuy moytandiku baat boobu. ndax dafa amoon ci seen biir ñoo xam ne gisuñu ak yonent bi gisuñu yonent bi sallallahu alayhi wa seen bët yi ku ci mel ne Abdullahi ibnu umm, ibnu Ummu Ummu Maktum moom suñu borom di waxal ci suuratu Abbas jox nañ ci exemple gisul yonent bi ki bëtam waaye nangul na ko xolam kon nañ naan ku dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam te gëm ko am nañu dajeeg yonent bi gëmuñu ko Abu Lahab daje naa moom te gëmu ko kon te gëm gëm ko am nañu ko gëmoon te faatuwaale yu ñëw seen gëm dañu war murtat kon dajeeg yonent bi sallallahu alayhi ba noppi daje goo xam ne li xaaday am ndax Uwaysul Qarni daje naa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam génération waaye ma nga woon ca Yaman jotu na ñëw Màkk wala Madina jaayante ak yonent bi sallallahu moo tax ñu ëpp ci borom xam-xam yi ne moom mooy sangu sangub taabiyoona yi mooy kilifa taabiyoona yi ngir ne dafa amoon waajuram boo xam dafa tawatoon mu am ngàntul ñëw jaayante ci yonent bi sallallahu alayhi yonent bi nangul ko ngàntam waaye digal na saxaaba yi ñu dem siyaare ji ko ci xadis bu siiw boobu kon saxaaba mooy ku dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam te gëm ko te faatuwaale ngëm nga gis nga ci biir taarif bi waxuñu góor waxuñu jigéen waxuñu mag waxuñu ndaw mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen sayyidatna Isa saxaabiya la Euh, Anas ibnu Malik saxaabi la gone gu ndaw la woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibnu Omar Abdullah ibnu euh, abadi la arbaa yëpp rek ay gone lañ woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mën naa nekk gone mën naa mag ci biir kuréelu saxaaba yi nag dafa am ñu ñuy tuddee al muhaajiruuna am ñu ñuy tuddee al ansaar al muhaajiruuna mooy ñi dëkkoon màkkatal mukarrama nga xam ne rasulun min anfusihim yonente boo xam ne dafa bàyyi ko ci ñoom ci benn askan wuñ bokk euh, nga xam ne koo ci xool rek ci ñoom ñun ñëpp am na luñ fu mu dajeeg bi ñi ci ëpp ci ñoom ñoo ñooñu ñooy muhaajiruna yi te buñ ko doon tudd di ci joxe exemple mën nañ ci tudd ñu baree baree bare ci muhaajiruna xam naa du ñàkk nga laaj boobu ñëw ci kanam kon muhaajiruna yi mooy ñi jóge woon màkkatal mukarrama jóge goo xam ne bokkut ak seen coobare duñu wax ña gàddaayoon rek ndax am na ñu jotoon na gàddaay dem xabasa hijratul ula am na nañu gàddaayoon gàddaayu ñaareel ga dem fa waaye ñi nga xam ne ñoo gàddaay gàddaay gu mag ga bàyyi seen alal bàyyi seen lépp dem madinatu munawwara ñooñu la ñu tuddee al muhaajiruna al ansaar nag mooy ñi nga xam ni dañoo yaatu xol lool ca buñ ko waxee ñaari kuréel da caa am muy al aws ak xasraj ñooñu la ansaar composé woo muy ñaari giir yoo xam ne ci histoire ay quruuni quruun ay ati at ay téeméeri téeméeri at yoo xam ne nii duñ laale dañoo dañoo dañoo amoon problème duñ takkante duñu nuyoo duñu laale ca boobu ca ñoo bokk benn mintaqa buñ dëkk muy madinatu munawwara wala yasrib ga nga xam ne moom lañ ko doon woowee yonent bi moo leen jubóole bañ nekk benn Euh, ansaar yooyu noonu nga xam ne ñoom ñooy waa ansaar ñooñu dalaloon muhajiruna yi xaaj seen alal joxe joxe seen lépp ñooñu la ñu tuddee ansaar mu doon ñaari giir muy giiru awus ak giiru xasraj euh, ci tënk daal ñooñu ñi mooy al muhajiruna euh, ñooñu ñooy al ansaar waaw. jërëjëf sëñ Mourtala mhm. laaj boobu it yaakaar naa wax yàlla leer na laaj nañ ñi muy képp ku déglu xam na ni Eh, njëkk ne njëkk na sax ci baatub saxaaba ndax ñooñu muy tudd muhaajirun ak ansaar yooyu ci saxaaba yi lañ bokk kon njëkk a xamle baatub saxaaba yi muy képp koo xamante ni jamonante na ak yonent saa te gëm ko te faatuwaale ngëm ga nga xam ni duñ ci limaale sax ku ko gis ndax am nañu yàlla nattoo gisuñu ko mhm. euh, ba tudd ci Abdullahi ibn Makatum ak Waysunul euh, Xarani bi nga xam ni amoon na ngànt te nangul ko ngantam baay bi ñëwee ci muhaajiruna yi dégg nañ li bu xam ni ña nekkoon Makka te am na ci ñu bari ñee ne boo toppee leen dañu bokk ak yonente bi dara ñooñee bàyyi seen i alal gàddaay ak seeni i soxna ak seen lépp ngir rawale seen diine jóge Makka di Madina ñooñu la ñuy tuddee euh, ndax sax nee na am nañu gàddaay jógee euh, Makka dem Xabas waaye ñoo jóge Makka dem Madina noonu la ñuy tuddee muhaajiroon yi dëgg-dëgg ansaar it mooy ña nga xam ne ñu yaatu xol lañ xajoo euh, dalal ñaa nga xam ne ñooy muhaajiroon yi ba leeral sax ni ñoo composé woon ci ñaari giir yi nga xamante ni aw soo xasra yi nga xam ne at yu baree baree bari uh, amuñu woon jàmm daaw ñu laale waaye yàlla def tawfeex bi yéen saa salaam dikkee juboo nañ uh, ci ak mm, ay ci yàlla kon laaj boobu yàlla lu leer leer la uh, ñu ngi la ciy sant bu baax a baax waaye xam naa dañuy wéyal <coughs> question yi rek ginnaaw bi nga xamee ni xam nañ muhaajiruna yi xam ansaar Euh, dañ day baax ci ñaari kuréel yooyu nag ñiy déglu ñu xam lenn ci jëmm yi nga xamante ni ñay gën a siiw ci waa muhaajiruna yi ak ña gën a siiw ci waa ansaar ak loo ñu mën a baax baaxee ci ñoom loo xam man mënees na koo xamee ci ñoom incha allah jërëjëf sëriñ Cheikh al muhaajiruna buñ ko waxee mën nañoo tudd al xulafaa al arbaa ñoom ñëpp ci muhaajiruna yi lañ bokk Seydina Abu Bakrin moo ci gën a siiw ak gàddaayam moo gën a siiw ndax ak gàddaayam li tax mu siiw mooy daa ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa saaniya isnayni is fil xaar gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lay nettali Seydina ci la bokk euh, moom gàddaayoon na ca gàddaayu gàddaay na it ci gàddaayu màkka gi Seydina Ousmane Seydina Ali moom it gàddaayoon na te bokk ci ñu mujj dem na histoire ba demee woon moo desoon ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Omar moom daanaka mooy ki gën a siiw gàddaay ndax ñoom ñëpp dañoo gàddaay xoofu yatan dañoo nëbbu seenu gàddaay moom moo taxaw ca penc ma ne yéen yéene doon tere gàddaay ñu ne waaw mu ne man la Omar ibnul Xataab maa ngi gàddaay maag sama njaboot koo xam ne da ngaa bëgg a say doom wala nga bëgg say soxna ténj la nag ma xar ci nag ma kar ci xur wii nii danaa fi def say bàmmeel dañ wax ne gàddaay mooy gën a siiw waaye Mus'ab ibnu Umayr nga xam ne xasootu Uhud ak xasootu Badrin moom moo yoroon drapeau muhaajiruna yi yonent bi doon jël drapeau ne muhaajiroon yi diw mooy seen jëwriñ ansaar diw mooy seen jëwriñ an eh, ansaar sax dalaa xaajale dalaa wax naan aws diw mooy seen jëwriñ xasraj diw si diw mooy seen jëwriñ amaat yeneen jëwriñ joo xam ne mooy jëwriñ ñaar ñooñu ñëpp waaye ci xaswatu badrin ak xaswatu uhud gi nga xam ne ci la Musab ibn Umayr di faatu Musab ibn Umayr moo nekkoon jëwriñ yu muhaajiroon yi eh, Zubayr ibn al-Xawaam ci fukki yonent bi seere leen seen àjjana ci la bokk ci muhaajiroon yi la bokk talaat ibnu hubaydillah abdurahman ibnu xawf saad ibnu abi waqaas amar ibnu yaasir euh, ñooñu ñëpp ci euh, saad ibnu abi waqaas sax bokk ci yonent bi da ko saad ibnu abi waqaas abdurahman ñoom ñaar lañ bokkale woon waaw yonent bi bi ñëwee madinatu munawara da doon bokkale ku bokk fii mu mbokkale ko ku bokk fee saad la mbokkale woon ak abdurahman ibnu xawf amar ibnu yaasir nga xam ne yaayam mooy kii deretam njëkk a ci lislaam mooy sumaya ñooy ñi gën a siiw ci euh, muhaajirun yi waaw daanaka ma ci tuddee Musab ibn Umayr wala ma tudd ci Abu Bakrin rek euh, tudd nañ ñëpp mbooloo mu bari lañ ñoo xam ne nii ñii ñooy ñii bokk nañ ci ñi ci gën a siiw waaw ci waa muhaajirun yi mhm. ansaar it buñ ko waxee wax naa léegi ne mooy aws ak xasraj ñoom mbooloo lañ moo xam ne nii yonent bi daana wax naan xubbul ansaar min al imaan ñii daal niñ mel ci jukka ji rafet bëgg leen ci ngëm yàlla la bokk boo doon xool xasraj Saad ibn Ubaada moom moo nekkoon seen jëwriñ yaakaar naa bu ñu nettali xaswatu euh, badrin yonent bi ba muy diisoo ba ñëpp joxee seen xalaat euh, xalaatu benn rek la doon xaar muy waa ansaar ban mawqif la ñu am ci xas ban taxawaay lañu am ci xare bi ñuy bëgg a xare buñ d'accordee mu xuus ci xare bi dugg ci buñ d'accord du dem ndax ñoom ñoo gën a bari ñoo gën a xam ne euh, wàllu xeex ak ci aju keroog Saad ibn Ubaada moo jóg wax kàddu yu am solo yooyu noonu Abdullah ibn Rawaha ci waykat yi la bokkoon yu mag yi eh, Ghazwatu Mu'ta lañ ko reyee moo nekkoon ñetteelu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ rey ca xare boobu ñuy woowee Ghazwatu Mu'ta Abu Ayyub al-Ansari moom la ñu dàkkante la dëkkandoo bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi mu ñëwee Madinatu Munawwara bi mu waree giléem gi ñëpp dañ doon xëccoo naan suñ suñu quartier wala suñu koñ fa daal yonente bi dañ ne bàyyi leen giléem gi fu mu yës rek foofu mooy nekk sama kër euh, wax nañ ne giléem gi dafa wër a wër a wër ba ca àgg ca buntu kër Abu Ayyub ansaar ansari mu bóof fa yonent bi daal fii mooy nekk këram bagage yi yëpp ñu wàcce ko ca kër Abu Ayyub ansaar ansari tur wi rek doy na ne ansaar la Abu Ayyub al-Ansari moom lañu dàkkante la jaaru nabi bu ñu doon wax dëkkandoo bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca Madinatu moom lañ koy wax moom it mooy ku amoon cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wax nañ ne bu masaa togg wala mu joxe waajalu ñam lu muy tuuti tuuti yonent bi day jëfandiku noppi mu soog a jëfandiku ca moom buy jëfandiku day xool fi baaraam yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jaar mu jaarale wax nañ ne kër gi ñaari tabax la woon tabax benn néeg ca kaw ak ci suuf euh, waaye yéeg gi ci kaw day metti yonent bi dem ci néeg bi ci suuf moom mu yéegoon ca kaw waaye guddi gu njëkk nga nee nañ dafa nelaw nelaw xelam dalut moom mu ne ca kaw yonent bi ne ci suuf daal mu wàccaat xamal ko ne ko moom am na kersak di tëdd ca kaw yonent bi di nekk ci suuf te yéeg gi euh, xawoon a jafe kon abu ayub al ansaar yi ci ñoom la bokk xasaan ibnu saabit mi ngay dégg waykat bu siiw boobu ci waa ansaar la bokk tey ci waa xasraj la bokk abu saïd al xudri ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo lu luñ solo xadis ci la bokk moom it ci waa ansaar la bokk abu darda al yi ci ku la moom ci wàllu xadis ku ñuy dàkkante la xaadimu rasul muy anas ibnu malik moom it ci waa ansaar la bokkoon ci waa xasraj la bokkoon waa aws nag buñ ciy wax mën nañoo tudd saad ibnu muaas moom moo nekkoon seenu sang ñoom Muaas ibnu Jabal mi ngay dégg mu siiw mi moom ci waa Aws la bokkoon tey ci waa Ansaar la bokk Hanzala ibnu Abi Hamir moom it ci ñu siiw ñu la bokkoon ci waa euh, Ansaar la bokkoon Muhammad ibnu Maslama ñoom ñi ñëpp ay tur lañ yoo xam ne nii yu siiw la ñuñ xam ñi ñëpp ci waa Ansaar lañ bokk suñ euh, seex waaw <coughs> jërëjëf euh, sëñ Mourtala la macha allah day mel ni ku doon kuy déglu rek eh, xam nga bu baax muhaajiruna yi xam ansaar waaye yemoo ci xam ñoo ñooy ñan rek waaye kuñ ci lim la woon tey ñan rek da nga ko man ndax leeral na bu baax ci tàqale tuddal ñu sax ba ñoo xam ni ci mu muhaajiruna lañ bokk nga xam ne rek nee na ñeenti xalifa yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ñëpp ci muhaajiruna lañ bokk ak ñeneen ñi nga xamante ne daanaka ñenn ci ñu wala ñu ëpp bopp ci ashratul mubashirina bil janna ñoom ñu bari ci muhaajir lañ bokk waaye bi ñëwee ci ansaar tudd na ci ñu bari ci diggante Aws ak Xasraj eh, Saad ibnu Ubaada Abu Ayyuba ak Xasaan ibnu Abu Darda ak eh, Saad ibnu Maas ak Maas ibnu Jabal ñoom ñëpp nee na ci waa ansaar yooyu lañ bokk Euh, waaye gis nga mbokk yi ku mel ni abu ay ayuba bi mu tudd nga xam ne lu lu lu ma marke la wax ci moom loolu daanaka moo di taalibe rek ndax ima waaw imagine li ci njëkk mooy atabarruk maanaam yonent saa salaam dafa jiital adab ay teggin ndax moom ab sangam du nangoo lekk njëkk ko waaye dafa lekk ba pare loolu wëlbatiku te ñaar ci bunt boobu li olof di wax ëfal dugg na ci ëfal ëfal mooy li ñuy wax isaar isaar walaw kaana bihim xasaasa loolu yàlla nga ko tagge woon ansaar yi ci sawtu xashr muy lu am solo waaye nee na ci fa mu daan rëdd baaraamam yëpp day xool fi mu lekke mu mu mu barkeeloo foofa beneen bi ci desit mooy tëdd ci kaw xam nga mën naa am ni yonente bi yéeg bi dana metti ci moom mu bàyyee ko suuf dogguma la sax seen hmm. néeg yi ñu doon am hmm. yéegukaay yi ci garab la daa doon doon ci garab gi ngay jaar doog a egg wala tabaxu ban lay doon boo xam ne bokkut ak suñu escalier yi nga xam ne da ngay yéeg nii rek mu neex hmm. yéeg gi daa metti woon lool sax macha allah waaw loolu lu yéeme la xam nga tëdd sa xel dalut nga xam ne yow kawe gi nga ko kawe nii rek tax na nga wàccaat ngir bëggoo koo tiim loolu daanaka sëñ bi mooy dëgg-dëgg ak taalibe maa moo tax uh, dana baax lool loolu yu mel noonu nga ciy taxaw di mën a du ton du tontu sax waaye radd ñi nga xam ni. dañuy jàpp ni xëy na màggal nit ak teg ko ci barab. ak xeeti wàccuwaay yooyu. dafay daanaka ñuy tegtaloo ci tabarruk. muy mhm. barkeelu. Mhm. ñaare boo xoolee xadis bi da ko ci fekkaale. macha allah muy tabarruk abu ayyub al ansaari. ansaari ci ñam yi mu doon jox yonent bi. moom bu ndab li ñëwee bu ubbee ndab li. Mhm. du xool fu mu yam. day xool fa rëdd ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, doon jëfandikoo xañ na bariwul. su jëfandikoo ba noppi da nga gis baaraam yi fi mu jaaroon waaw ñi ñi nga xam ne dañuy dañuy tegtaloo ci lu jëm ci wàllu daganuk tabarruk hmm. maanaam barkeelu hmm. danañ danañ danañ tegteloo ci barkeelu gi nga xam ne abu ayyubul ansaar yi daanako ko barkeelu ci kasaalika anas ibnu malik mii ma tudd nga xam ne hmm. waa ansaar dañoo bëggoon yonent bi dañoo xiroon ci moom dañ daa barkeelu ci moom anas ibnu malik bu yonent bi masaa di dagg ay baaraamam da daa for dagg di bu yonent bi masaa watu da daa for fepp karaw di ko denc kenn xamutoon lu mu ci jublu woon pot boo xam ne da ko ci doon def bi mu nekkee ndax Anas bi mu nekkee xale la ko la ko yaayam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko fekk yonent bi mu ferenkulaay mu ñëw teg ko ci pooj bi yonent bi ni ko xaasa mm-hmm. Anasun mm-hmm. xulaa mu ko yax di xale la boo xam ne jox naa la ko mm-hmm. fad'ullaha lahu maa ngi lay ñaan yow yonent yow yonent bi nga ñaanal ko ñaanal ko yàlla yonent bi daal di ñaan yàlla nga barkeelu dundam yàlla nga guddalu fanam yàlla nga baril alalam yàlla nga barilu njabootam yàlla na dee dem àjjana anas ne ne li ma yónent bi ñaan loolu lépp gis naa ko ca boobu bi mu koy wax boobu téeméeri atam tegal na hmm. bi mu koy wax it boobu alal ji bari woon na bari goo xam ne nii moom ci boppam da ko yéemoon ndax amoon na tool boo xam ne nii saa yu ko wittee wala bu ko defee day meññiwaat ci at mi ñaari yoon loolu mooy hmm. eh, ñaan gi ko yónent bi ñaan loon na alalam ji bari hmm. na njaboot gi barkeel moom moo wax ne li mu am ci doom ak na téeméer moom Anacim Mari daan lenn dong la bokk moo bokkoon ci ñaan ga ca gisaguma ko hmm. muy yàlla na dem àjjana ci leer ni ma ni ma ni ma jaare ci yii <laughs> noonu la ma dem àjjana gi leere hmm. Anas dara dajale jeexit yooyu nga xam ne dara bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu hmm. nekkee ala firasil mawt nga xam ne mi ngi sukraat pot boobu mu doon def wéeyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak karaw ga da ko doon jël di ko nuux ci bakkan yi eh. yenn yi mu di ko lokk ci gimiñ gi moom la faatuwàll ne nga xam ne lim mboolem li mu amoon ci daggiti wéeyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak karawam yooyu dañ ko ko suulaale moom Anas ibn macha allah ansaar dañoo ràññeeku woon hmm. ni murid yi mel sax dama la noonu ansaar noonu lañ meloon ci bëgg yonent bi hmm. gis nga Xasaan ibn Saabit Muaas ibn Jabal ànd ak yonent bi bi mu ko yebal Yaman hmm. dañoo dem ba mu yàgg yonent bi téye ci loxoom ne ko Muaas man ko la bëgg laa rongo ñuy wadd mu ne ko saa yoo ñëwatee fekk toomu fi da fi gis sama jàkk ji tey da nga gis sama barab bi da ko siyaare Muaas ne ko nooy tàggoog nit yow yonent yàlla bi di ko wax waxi barab ak bàmmeel jooy fa Eh, mooy bi mu koy yebal mu dem yaman waa ansaar daanaka boo doon boo doon boo doon nettali histoire yonent bi sallallahu mm. yi ma tudd ci ansaar mm. kenn ku ci nekk rek mat na waxtaan macha allah moo tax yonent bi daa wax naan xubbul ansaar minal iman mm. bëgg waa ansaar ci ngëm yàlla bokk Abu Darda Abu Saïd al-Khudri wax naa léegi ne la juróom-ñaar yi ëpp luñ soloo xadis ci la bokk jaabir ibn abdullahi jaabir moom la yonent bi waxoon xadis bu siiw boobu ngay dégg naan ko Euh, gone nga takk wala mag. waaw lu tee nga takk mag jaabir ibn hmm. Abdullah ansaari waaw dem naa jeex na waa kay hmm, hmm. Abdullah ibn Rawaha euh, yonent bi dafa joxoon drapeau bi ñett dane a li Jaxfar fa in usiba fa li Abdullah ibn fa fa in usiba fa li euh, ñett daal la waxoon ñett la joxoon drapeau bi xañ na balaa waxtaan wi jeex naa teewlu kenn ki ah, ah? Seydou ibnu Haris Seydou ibnu Haris Seydou ibnu Haris mm, mm. la jox raaya bi mm. bu fayin usiba fali eh, fali Jaxfar fayin usiba fali Abdoulaye ibnu Rawaxata macha allah Abdoulaye ibnu Rawaxata mooy ñetteel bi nga xam ne moom it eh, moo faatu ci xasatu mu taw googu moom it ci ñi gënoon a ràññeeku ci waa waa waa ansaar yi ci la bokk eh, kon sëñ Cheikh Saadu ibnu Muas wax naa ko léegi moom moo nekkoon Seydou Aws ñoom ñi ñëpp kenn ku ci nekk am nga histoire bu rëy rëy ci yonent bi am nga jagle gu rëy rëy rëy ci yonent bi sax kay daanaka mboolem xadis yi ñi tegtaloo ci loolu nga wax na noonu ci mm. taalibe mm. muy ab yar sa diggante kilifa mm. muy tabarruk mm-hmm. maanaam barkeelu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanaka yi ci ëpp sax ci ansaar nga koy yëg aw nit lañu woo woo xam ne nii dañu wala si na tabawo daara walimaana min xa walimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim <laughs> wala yajiduna fi sudurihim xaaja mm-hmm. alxuraan di leen tagg lu bari wa yusiruna ala anfusihim mm-hmm. ñoom dañuy xool li ñu gën a bëgg mm-hmm. ñu joxe ko walaw kaana bihim xasaasa wax nañ ne Saad ibnu euh, Saad ibnu euh, ibnu Abi Waqaas nga xam ne yonent bi doon mbokkale naan diw mbokkale naa ko diw diw mbokkale naa ko diw bi mu àggee ci Abdourahmaan ibnu Xawf ki mu waroon na mbokkale ak Abdourahmaan ibnu Xawf Saad dana ko man day ku bari alal laa Abdourahmaan tey bis ni tey danaa teg sama alal xaaj ko ci digg bi nga jël benn xaaj bi lu ma am rek danaa ko xaaj ci digg bi nga tànn ba nga cey jël ba ca des ma jël ko. Hmm. boobu Abdourahmane bin Xawf dafa dajee ki gën a nekk milliardaire ci waa Ansaar. ci waa Ansaar. Hmm. Hmm. waaye Abdourahmane bin Xawf da koo sant gërëm ko ñaanal ko. ci yéeneem ju rafet yooyu nga xam ne mi ngi bëgg def waaye dana ko daal li ma gënaloon mooy. nga wax ma ni nga def ba am alal ji man def noonu. muy ni nga ni nga góor góorgóorlu ba am alal ju mel nii. ci la Abdourahmane bin Xawf góorgóorlu moom it ba nga xam ne moom it bokk na ci ñi gën a ràññeeku ci saxaaba yi ëppoon ci alal macha allah kon ansaar. Mhm. Euh, nit lañ ñoo xam ne daal. Mhm. Euh, ay royukaay lañ. Mhm. ci jikko ju rafet yàlla tagg na leen ci yonent bi tagg na ci. mën nañu wax ne xare badar bu amee. ginnaaw yàlla ànd ku ci ansaar ànd moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg ca xare boobu. macha allah euh, kasaalika it muhaajirun yi. macha allah jërëjëf sëñ Mourtalla Sylla yëg yàlla li nga mujj indi sax lépp am solo waaye tax nga taxawaat ci jëmm yooyu dafay may jox bu wér wér. Euh, ci lu sori sëñ Tuubaa doon gum doon yonent bi saahir ci ak baatin dafay mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom da koo jagleel ay nit ñu baax ay nit ñoo xamante ni gëm nañ ko dayob gëm boo xamante ni boolewuñu kook dara waaye sëñ Tuubaa ñi àndoon ak moom it teg nañ ko foo xam ni bët ba saxaaba yi doon xool yonent bi sallallahu alayhi moom la ñi àndoon ak sëñ Tuubaa doon ko xool moo tax sax wax nañ ni daan na wax magi taalibe den roy saxaaba yi ndax ñooy seen baay ci diine seen baay ci diine googu nag mooy ak taalibe rek maa roy leen saxaaba yi ci taalibe niñ fanke woon yonent bi ndax boo demee ci sourate Hujurat da ngay gis li alquran di waxee maanaam yoonte bi ni mu ñàkkee moroom fañ ko war a teg ba seen kàddu bu mu kawe kàddoom bu ngeen bëggee dugg da ngeen yëgloo bu ngeen taxaw ci ginnaaw di ko woo mais nii nga leerale li nga xam ne bari na ci yoo xamante ni manes na ko cëslaayoo ci buñ bëggee wax tawassul wala tabarruk barkeelu wala yu mel noonu yi nga xam ne ñu baree bari ci jamono ñi bëgg lu yomb dañ koy faral di diingat lu baree baree bari te fekk mu wér lool ci diine te leer nañ lii de lu ba lu mat di waxtaanee lu mat di leeral la kon ci euh, tënk rek euh, waxtu wi jeex na waaye dañ ñuy tëjalee rek tàggo tàggatoo waale ko euh, ban kon wàccuwaay wala ban taxawaay la jullit yi war a am ci saxaaba yi. Hmm. jërëjëf sëñ Cheikh wàccuwaay bi mooy ñu bëgg leen ñoom ñëpp ci bañ leen a xaajale. wax nga léegi ne suñ borom ñaare buy tagg yonent bi sax ñoom ñëpp lay wax muhammadun rasulullahi wala sina maawo wala sina maawo mooy mboolem saxaaba yi laqad radiyallahu anil muminina daanaka du ci tàqale kenn ak kenn eh, li xew léegi nag ci jamono ji mooy di eh, nettali dañuy tere sax di nettali seen i xuloo ak seeni ak seen i jàppante eh, ci am ci histoire yëpp ci gën a siiw ci seen i jàppante ci taarix boo dee xool kenn ku ci nekk amutoon intation bu àdduna bu taxoon mooy dañuy dañuy wuute ci xalaat boo xam ne kii day jàpp ne moo ne ci dëgg kii jàpp ne moo ne ci dëgg ñu jàppante ca nga xam ne daray àdduna du ci du ci rax loolu moo ci moo tax ñuy tere ñuy xaajale seen biir wala di ci wan par parparloo wala di dëgëru fit sax di ci attaqué kenn wala di wax ay tuumaam dañuy tere sax ku siiw ku dugg ci lislaam ci ñoom ñuy nettali ñu nettali démbam masalan Abu Sufyaan xam nga ne magam gi yëpp ak màggatam gi yëpp daanaka ci yéefar la ko def ci misaal mujjantalam la ko yàlla dimbalee ca fatax màkk mu dugg ci lislaam mbooleem lu mu doon def min xabli fat lépp dañuy tere ñu di ko di ko nettali ngir teggi na ak ñoom kon ñoom ay ay ay ay nit lañ ay sang lañ yoo xam ne ñooy génération bi gën ci génération yi xayru xuruuni xar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na génération bi gën ci génération yëpp ci àddina bi ba aadama tàmbalee ba eh, àddunay tukki mooy ñi ma bokkal jamono ñu gëmma ñooñu kon ñuñ war a gëm lañ ñuñ war a sopp lañ ñuñ war a roy lañ ñuñ war di ñaanal lañ euh, dénkaane boobu daal daanaka moom moom lañ ci wax muy ndaw ñu di ko gëstu bu baax a baax a baax euh, tudd nga léegi Serigne Touba Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom it amoon na wàccuwaay bu mag a mag bu mu leen jox nii waa na nga gis xasiida goo xam ne da ciy tagg saxa da ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca doo ci gis tagg bu mu tagg saxaaba yi amul genn xasiida moom nee na sax tagg yonent bi bàyyi leen tagg woowu day manqué day am sikk ni ngay waxee ci mawaahibu ni dafa tagg dafa tagg yonent bi way ko ba mu àgg ci tudd turam mboolem saxaaba yi mu tudd ci mawaahibu naafia tuddul seen i tur muy ñeenti saxaaba yi ci gën a siiw kenn ku ci nekk woowee na la tur ci biir mawaahibu ca tudd sa tur sidna abou bakar nee na alal atiqi sidna omar alal waziri sidna sidna omar alal waziri sidna ousmane alal diyaay sidna ali ah alal xari bi waaw kon daanaka ñoom ñeenti ñëpp noonu la leen taggee mboolem xaside yëpp kenn ku ci nekk tagg na la ci léeg-léeg mu tagg xulafaalu arbaa yem ci léeg-léeg mu jàll ci ba ca fukki yéen jagle lañ euh, ñi nga xam lu ci mel ne ci tuxfatu mutadarrin wala mu sympathie tudd ci ñenn yi euh, bi ñu tëjee rek mooy ci xissa bi sëñ Modou Lamine di nettali ci Irwa ci njëlbeenu Irwa sax la ko doon nettali nee sëñ bu mag bi dafa waxoon daa laaj suñu borom ne ko nit ku ne am na kër ci àjjana am kër ca sawara euh, bu nekkee jullit ba dugg àjjana dañ koon ne ko boo jaamutoon yàlla si kër gi nga jëm ci sawara waaye jaam gi nga jaam yàlla nag moo tax kër gi day gent àjjana nga jëm bu fekkee bi yéefar la boo xam ne nii daa dem sawara dañ naan ko boo jaamoon yàlla kat pale bale ngay séen ci àjjana fa nga jëm waaye ñàkk gi nga jaam jàkk jaam yàlla nag moo waral nga dem sawara nee na mu laaj euh, suñ borom ne ko noon yi ma wër weddi la ca di ma sonal di ma di la di la di la di la moy waxtu wu ne seenug sawara moom leer na nañ daal koy laaj ne ko seeni kër ci àjjana la bëggoon nee na suñu borom xamal ko ne ko jox na ko kër yooyu nee na kër yooyu yëpp mu jëlaat ko joxaat ko addiye waa ahlu badrin loolu way na ko te it mu ngi ci biir waa sëñ Modou mi nett na ko ci xissa bu gudd a gudd la loolu kon cofeel gu mu am ci saxaaba yi ku joxoon si ku leen joxoon wàccuwaay la kon ñun ñii di ay taalibe eh, nga xam ne Seyxul Xadim lañ yaakaar war nañoo góorlu bu baax a baax a baax ci bëgg leen wax nañ ne borom daaru eh, li ëpp ci njabootam maam Thierno Birahim saxaaba yi la leen tuddi sëñ Mbàkke bu ñu baree baree bare ci njabootam àllul bayt la leen tudde ci àllul bayt ñooy saxaaba yi ba tey te ñoom daawu ñu def dara ci lu ndigalu sëriñ bi kon du ñu ñuy suufeel du ñu ñuy sàllalu du ñu ñuy teg ci ginnaaw du ñu ñuy xeeb waaw ñu ñu war di waxtaane lañ ñu ñu war di tudd lañ ñu ñu war di jox seen wàccuwaay lañ ndax yàllaa leen ko jox yonent bi jox leen ko sëriñ bi jox leen ko Euh, kaddu yooyu la ñuy tëjee kon sëriñ Cheikh. Hmm. Euh, jërëjëf sëñ Mourtada Sylla euh, wax yàlla yaakaar naa ko doon déglu di ànd ak ñu jotaay bi ci fu waay mën a nekk rek boo teewloo da nga jariñu bu baax a baax kon lim tëjee am solo la mooy fii jamono toll saxaaba yi ñu mat a fonk lañ ndax ñoom ci ñoom la yàlla jaaree taxawug di taxawug diine ñoo jamonante ak yéen saa sallam wax na tamit nit soo ko bëggee koy fonk koy la mu fonkoon te sëñ Tuubaa ñu fonkoon saxaaba yi la gis nga xissa bi mu ci indi waaye ñu leen joxoon wàccuwaay la it loolu ku fekk ko ci waxuma xissa sax waaye ku jël xasida yi rek yaakaar naa dana doy sëkk nga gis wàccuwaay bi sëñ Tuubaa jox saxaaba yi radiyallahu anhum kon ñoo ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi di ñaan suñu borom guddal fan wi te yokk xam-xam bi Eh, ba li ñu fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa mu nangu te sëñ Tuubaa nangul ñu ko te fulal ñu ko te làqal ñu ko fu yàq yeggut kon kuréelu liggéeyal ko tedd moo àndoon ak yéen ci seen waxtaan yi nga xam ne ñoo ngi ko baaxoo amal fii ak gàmmu ga incha allah tomb bi ñu ko doon waxtaanee muy saxaaba yi andoon ceeg seen suñ mbokk Mouhamed Mourtala Sylla kon ñoo leen di tàggu fii di leen jox dig daje ci beneen tomb incha allah ñoo ngi jégalu baax a baax. in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib